Euh, defe naa ni xool doxalin wi xam ni doomi soxna la ku yar la ku gëstu xam-xam la ba noppi di ci dimbali bi wa ji layil karim ku xam sirru ñaan yàlla macha allah ndax dañ wax ni boo bëggee ñaan yàlla muy nangu da ngay necc la yàlla bëgg tey nag ñu dalal sëñ di góor yàlla di nitu yàlla di ñaan ko yàlla di ku baax fas yéene waxtaanee ak moom xam-xam ngir liy dimbali jàmm yàlla seeni soxla daanaka lii sax nangu ko waaye man maa ko imposé ndax dama ne ko segam ñi mënut ñooy génn di wax yéen ñi yàlla dénk xam-xam sañ ngeen a génn nag wax li leen yàlla defal sëñ Abdou ñoo ngi lay nuyu euh, di la ndokkeel ak di la ziar bàyyi la ngeen di yokk mbokki internet di la seetaan. jërëjëf sëñ Bour ñu ngi lay ziar bu baax. alhamdulilahi la si xalaqa samawat wal ard wa jaala sulumaat wa nuur suma lasina kafaru bi rabbihim yaajilun asalaamaaleykum wa rahmatullah adduan silaamu mumin ala man qaala waaleykum salaam wa taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu ñëpp di ci nuyoo bi kilifa diine yëpp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala leen fi di ñaan tamit kilifa aada yi tamit kasaaka di ñaan suñ suñu borom subhanahu wa taala feer bi nekk fi mu jëlee ko fi ci lu di ñaan borom maanaam tegg leen ko ñi ci faat suñu borom yërëm leen te jéggal leen ñi nga xam dal leen suñu borom musal leen ci. Euh, sëñ bi tey moom dama leen ni neex naqari wax ndax yéen ñi yàlla dénk xam-xam jàng ngeen doon na ko xam ko bu ngeen waxu waxulee rek ñi xamul te yàq ñooy wax. dëgg la xam-xam moom dafa doon loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo na képp ko am da ka war a leeral ndax wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mën a am mooy xam-xam maanaam kenn du ci nay ku ko am rek da ka war a gën tasaare ko nit ñëpp dégg ko man daanu ma ko def waaye tamit nit ñi boo leen amalee njariñ waxtu wi njariñ dafa war a yaatu ndax suñu borom wax ci alxuraan ne am dafa yem ko su nit ñi ku leen amal njariñ ci kaw suuf rek suñu borom bàyyi la fi mm. tey ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ci amal nit ñi leen amal njariñ ci xam-xam kon sat nañ suñu ak yeneen fànn nag waaye nag xam daal moom duñ ci maslaa képp koo xam ne yàlla dogal na suñu borom maanaam ngam aajo ak aaj ju mën doon nag te mu tënk ci lislaam tëng ci alxuraan suñ borom bu ñëwee fii sa aajam dana faju incha allah te yaakaar naa ne xam nga ci dara. sëñ bi donc ñuy génn kon des fois di dal ci kaw sëriñ si. waaw ñi dal ci kaw sëriñ si moom maa ngi leen jox très ñi bàyyi dal ci kaw sëriñ sëriñ si yëpp bokkuñu yam ñi baaram sutantee noonu sëriñ si yëpp bokku yam ndax lépp loo gis rek maanaam lu yàq nga ci biir ndax sëriñ si bëri na ñuy yàq ay bëri ñuy defar waaye tamit dal ci kaw sëriñ nga bàyyi ndax sëriñ si yëpp bokkuñu yam bëri nañ ñoo xam yaa ngi dal ci kaw sëriñ fekk ne la lay yàq la lay dal maanaam ñëw ma ko yàlla waaye leneen loo xam ne da nga toog rëcc ko euh, sëriñ si waxuma nag ñëpp a man waxuma tamit kenn mënul waaye tamit li ci mën a am mooy nañ bàyyi sëriñ si kaw dal nañu dal ndax bëri na ci li tax responsable li ma la ci mën a euh, jox euh, boo xoolee ci ministère yi ak président yi ak tamit borom ndomb xam nañ ko ñoo ñooy sëriñ si ndax gannaaw yàlla lañ am rek sëriñ si tax te xam na ci lu wér te li tax moo ko mooy nañ bàyyi sëriñ si ñu dal seen kaw ndax sëriñ sëpp bokkuñu am Euh, caageen nit daan daal ci kaw sëriñ mu yàqal ko loo xam ne ba illaa yow mi diini doo dootu defaroon waaye sëriñ sëpp bokkuñu yem falaa yem sëriñ sëpp bokkuñu yem falaa muy wax ju ju dëgg wolof dafa ni bu yàpp yëpp mel ni res kon paaka du ci amu yoon euh, sëñ bi euh, wàllu bor laay njëkkee ak yow kii nee na waa ji da ko yoreel di ko dawloo ay at fu ne dem na fa ak moom waa kay buur wàllum bor moom képp koo xam ne suñu borom dogal na nit yoral la ko ak ndombo tàng gu mën ak ku ma doon ci àdduna bu ñëwee dala koy fay waaye nag du ma ci ñaan la nit xooluma ko ndax mbirum bor fa doon loo xam suñu borom ko tudd ci alxuraan muy yaa ayyuhal lazina amanu izaa tadayantum bi daynin ilaa ajalin musammaa aaya bu gudd la ci alxuraan waaye li ci mën am suñu borom dane nit kii bu daalante nit bàpp bu ñu la ko fay kon daa doon loo xam ne kon farata la ci nit bu yor la bu ma fay ko waaye nag ku yàlla dogal nit yore la bor ki maa tey dong mu ne du la ko fay te mu yor ko laa wax de wallahi la asim bu ñëwee dana la ko fay. waaye ci kaw nag mu yor ko ndax nit bu ko yorul lañ koy lor te gi amul ñu njariñ waaye nag ñun bu ko yoree daañu xool ba xam ne kii yor na ko muy suuf muy alal ak lu mu moo doon muy rek wallahi la asim bu ñëwee dana la ko fay waaye nag ci kaw mu yor ko loolu moo ëmb ci mas la bëri na ñoo xam yaa ngi leen dégg maanaam naa leen ko te bëri na sëriñ soo xam ne wallahi la asim dañ leen koy jàmbat jàmbataan ma ko seen aaji faju lu leer laa wax waa sëñ bi léegi léegi ba sëñ bi loolu yow loolu boo koy jëfal di nit ki da nga koy appal. waxuma la appal de da ngay ñëw laa ma saafaraal la ko ci lu gaaw man sama yëf da tënku ci leneen ci alxuraan lay ñaan moo tax man ñaanu dul alxuraan ndax it alxuraan dafa doon loo xam ne moo gën gaaw li gaaw waaye nag ci kaw nit ki sell yàlla xam nag ba ma juddoo ba nii ma toll musuma fàttali ma fu ma defee lu man te dama kaa mokkal ndax it alxuraan yàlla dafa dogal ne li commencé bàqara ba naa ci mën naa kaa tari fii ma toog te aaya bu ci nekk mën naa xam ne muy firi ci arab te ba jàngi jot damaa jàngi. Mm-hmm. bokk mu ci gone yi léegi. gëstu jotee da ngaa gëstu ji. xam-xam ñett dama cee daal benn dama kaa gëstu donn ko ba pare nag maanaam jàng ko. Mm-hmm. ñett yëpp dafa daje ci kon ku yàlla dogal nga am sa aajo aaju ma doon boo ñëwee ci man buur bu ma ne la aaj day faju boo tëddee nelaw day faju loolu moom yaakaar naa bëri na ñoo xam ñu ngi may dégg seen aaj faju na maa ngi ci wax leen ñi nga xam ne dañ danoo bàyyi ñun am na ñoo xam maanaam danoo déclaration ñaan ñoom bu déclaration ndax yàlla mm, am na boroom xam-xam mooy Sëriñ Tuubaa sa lay wax nee na wa man xaraxal baaba wa laj wa laj nee nit ki bi fëgg ci bunt bu fëggee rek bu mu taabaay nee mën naa am nga fëgg rek bu dul tijjeew waaye nag ñi nga xam yàgg noo ñaanlu ci ñoom laay laay waxal yàlla bu dogalee ñu ñaan yëg gis ñu ci kay ñaan bu ñu xas sëriñ bi déedéet mën naa doon loo xam ne sëriñ ba ci boom suñu borom moo jaay aajum du ta faj ci yow ndax sëriñ sëpp bëri nañu man wax dëgg yàlla du ma dingat kenn nag waaye nag bul taay tamit li tax ma ne bul taay mooy fu ne ak sa wërsëg fa mu nekk rek waaye jàpp naa ne képp ku ñëw ci man ak ku ma doon buñ jëflanteem aajo dara faj waaye nag man ku ma ko xam ne bu ma xoolee nduru maa jëflante moom sama koy xam sànq ba tey dama laa gis sëñ bi téléphone yi sonné ngay wuyu di wuyu di wuyu ba ma ni la mujj gi sëñ bi yow est-ce que doo wut ku lay maanaam ku lay wuyu le te am na ci ñaankatu yàlla yoo xam ne dem nañ ba sañatuñu wuyu téléphone client yi dañ koy jàmbat waaw loolu am na ñu ma koy defal sax waaye nag jamono juñ toll Euh, maanaam doo gisee ku ma ku ma ku ma jël téléphone mooy ki nga xam ne yàgg naa jëflanteeg moom ndax man damay fel doon ki ma yàgg jëflanteeg moom ci wàllum ñaan moom heure bu ma bëggee jot may jot waaye koo xam ne ku bees la moom am na fooy jaar ba soo yegg ci man loolu day am waaye nag euh, man moom sama lépp yomb na sama dara jëful wallaay na si ndox euh, dama am yërmaa ci doomu aadama te nit du ñëw rek wax dëgg yàlla ma ñaanal ko déedéet dama koy xool ndax ma du ñëpp laa ñaanal tamit ma xool ba kii maa mu mën nañ ñoo juboo ci wàllum ñaan te bu ma ñaan aajom dana faju moom aajom dana faju incha allah aajom dina faju incha allah sëñ bi wàllu ubbeeku réew mi fi mu nii nit ñi jàq nañu da nga daan gis ku bi woon magasin def ci ay milam dem ba mu yàgg xëy mu rës ñu ne daa umu ñu ne daa euh, lañ koo liggéey sëñ bi kooku dem ba bëgg a jëlaat départ ubbeeku ci boppam yàlla defal ko barke ci li muy def. waa kay buur xam nga wàllum ubbeeku daa doon loo xam ne doomu aadama bi ñu da ko waroon am ndax nit day tëju ndax tëju li ko war day bëri mooy day wéral tëju te gars yi bëri na ñoom day mooy rek beneen bi si topp mooy li gën a am importance doomu aadama mooy jaamu yàlla nit ki bu ko def du tëju te yàlla ñàkk julli daa loo xam nit ki bu ko def day tëju te julli dafa doon lu am importance ci doomu aadama te nit ki ku ne la ko war def ndax beneen bi ci mooy tëju ku yàlla dogal mu dal la ak ku maa doon boo ñëwee ci man damay xool ba xam ne lan moo la gàllankoor lan la boo ko defee bu ma ko xoolee ba xam lan dama lay woo lii ak lii la din loola ci yow ba def la loo xam ba koro ngay sàng su dootoo tëj dootoo tëju hmm? wallaahi naa ci loolu man sama lépp firmi la ndax lii ma lay wax nii bëri ñoo xam ne jaar naa ñoom foofa hmm. te yàlla dogal na xam-xam moom dafay am. dañuy neexal sa yaram ba mu neex ubbeeku boole ko wërsëg woo xam ne doo xam xam nga ni day dem ci sëriñ mu ñaanal ko Euh, mu dem ci diggante bu gàtt tëjuwaat man nag sama lay garanti sa ngir dund laa doota tëju ndax it dafa am lu nekk ci yow loolu lay dindi sepp ci yow teg ko ne waaye daal sëñ bi li muy digle daal mooy nangoo jaamu yàlla te bàyyi mooy yàlla. ah jaamu yàlla mooy lépp ndax nit ki bu bëggee ñaan yàlla yàlla may ko faaw mu nangoo yàlla ñaan ñaan yàlla ndax suñu borom mën a addumu rabbakum tadarruhan wa xufya suñu borom nee na boo leen mi ñaan faaw ngeen toroxlu faaw ngeen wàcc seen xam ne doo leen dara mosoo leen a may foofu la ñuy jaaree nit ki ñaan ak ba aju mën a faju ñun faaw ñu kañ suñu borom xamal na ko ñun dun dara ay jaam jaamaat lañ maanaam nangoo jaamu yàlla sell nangoo jaar ak moom foo xam ne bu ñu ko ñaan dañ ko may te waxtu ni ñu fa ñaan ñu fa jaar doomu aadama yi. sëñ bi bi ci jaaru bi. jaaru yi bari na. koo gis mu lii mooy jaaru sàngam lii mooy jaaru sàngam lii mooy jaaru sàngam waaye dafa mel ni am na uute gu rëy ci yow jaaru yi nga yor ak yi gaa yor. jaara moom bu noonu ko leer fii wu suuree wuñ ndax dafa jóge ci Souleymane Seydina ndax it te jënd wa leer na ndax nguur gi mu yoroon ci jaar la quand même waaye bu noonu ko leer fii wu suur duñ fi jukk jaara bii ma yor képp koo xam ne am na ko ak kum ma doon mën ngaa bàyyi loolu lu ma la garanti ndax moom laa takk nii. jaar bi am na lépp. ndax man lu ma lépp lu may def day fekk ma am ko man mi ngi nii moom laa takk laa tam mi ngi nii jaar bi bii. Mm. ku yàlla dogal nga am ko mën ngaa bàyyi ñaanlu nga jaara bi lépp li ci am li ñàkk njariñ ëpp na ñaar fukki junni ak ñaar ci njariñ te kenn xamul commencement ak yemukaay ba wallaay laaj bi ci njëkk mën bi ci gën a am importance boobu boo ko takkee doo sok doo def sok ci accident maanaam doo doo maanaam doo doo doo maanaam do xam nga da nga gis ñeeg ji mu attaque ko xelam mm. yooyu yëpp doo doo la ci fekk benn ku am kaaraange ngay doon te foo liggéey képp ku am jaara bi ak ku moo doon yaakaar te ne loolu moom lu may garanti nit lay doon mm. maanaam jaara bi ku am ak ku amul du ñu am jaara bi boo ko takkee ubbeeku sax dakk nga am baara la tamit te képp ku am nekk ci entreprise ak ku maa doon fépp foo nekk rek kooku yaa koy tene te ku yàlla bindu mën sa jëmm ji dara te waxtu wu ne boo ko takkee da nga ànd ak xel mu ndax nit day yëg fétim daan rëf di tiit loolu lépp li ko war a mooy am lii maa ngi lay garantil na ñaan ma mën kaa bay ak doon nag waaye nag bi am na yeneen yu muy àndal lépp ci nekk kaaraange la ubbeeku la wërsëg la la muslaay la te nag boo ko boo doon def su soog atu weer la jaay per bi day ñuul te day tàng ji te la koy signalé te xam naa ci dara. dala koy moo tax ma ne képp kuy nit rek ak ku ma doon rek war nga mën am jaar yi yi nag bëri ñu koy joxe waaye jaar yi yëpp bokkul. Mm. sama jaar keneen. Mm. ndax dafa am fu ñuy jaar am ñu ciy def ak lu ñu def ba nga mën am jaaro bi. Mm. allah. mu ngi noonu kon jaaru baa ngi noonu sañ bi ma gis nga yore sànq lu mel ni ay galani sumpu wala du galani sumpu. waaw loolu sotti la xam nga sotti yi moo nekk nii buur li ma ci amoon bëri na lool te waxtu nit ñaa ngi ma cee woo mi ngi nii sotti yi ku yàlla dool nga am ko maanaam bu ci njëkk mooy te toroxlu am noonu ndax gars yi bëri na seen noonu ñoo leen tàddeel te socc yi ba ci moodu moodu sax dañu ko mën am ndax ku koy socc doo da ngay am lu gaaw te bi képp koy sokk da nga am kaaraange te waxtu wu nekk mooy da nga am xëybu maanaam nit da ragal boo koy soccee mooy nit ki boo xam ne tey daa bëggoon lor sa boo jàkkaarloog moom maanaam day an aneer day xam ne yow doo ko ñu laal te du socc kas gi dafa am yenn yu àndal te socc bi maanaam ñi nga xam ne du nekk kayit yaa ngi koy soccoo rek maanaam kii da nga koy am ci lu gaaw a gaaw waaye am na yu muy àndal soo ci képp ku am muy jigéen laa wax sa jëkkër dana la gën a bëgg gën laa bàyyi yaa fi a ngi ci kon daal kii ndekete du socc simple waaye socc yu doy waar la. kii dafa fañ ko jëlee ak ba def ci man ci man ndax it waxtu wu ma ci te jox naa ko nit nit woo di sant bay jooy kon sant naa ci saa bu baax a baax ndax xam-xam du caaxaan te dafay dafay nekk mm. waaye nag ku ko am moom wallaahi la xasim mën ngaa toog toog gu wér xam ne yaa ngi ci lu wér. mën ngaa toog toog gu xam ne yaa ngi ci lu wér man maa ko wax sëñ Cheikh Jamil ndeysaan li ma leen waxoon nee leen tey jataayu xam-xam la sëñ bi lii lëm ba jamono fi mu nii mooy wàllu ngóor a gars yi koo gis rek mu yorob sunguf naan la lii ngóor laa laak léeg bi ne lii kat de dinaa ko kii eh, ci njëlbeen gi dana régler sama problème waaye finalement après damay dem ba suma bëggee seeyaat foog ma koy jëlaat dangay dem ba dangay ngay dépendre. waa kay xam nga ngóor a li koy war dafa bëri man tout le temps nit di ma ci woo di jàmbat waaye nag képp koo xam ne yàlla dogal na nga nga nga nga nga nga tële wala nga booy sëy di gaaw a daan wala sa awra sa gàtt man awra bu dellu xam nga awra si di dongal day fasu te am na loo xam ne boo ko naanee man awra day fecc kon ndax si day lembu rek yi lembu rek waaye nag sunguf sii ma ci yor mi ngi nii képp ku ma ko jox balaa sunguf see jeex sa résultat dana leer mm-hmm. ñii ma ko jox xam nañ am na ñoo xam ne tout le temps ñu ngi bëgg sunguf si waaye sunguf si ni képp ko am bu la neexee mën ngaa bàyyi lépp luy ngóor mën mën ngaa bàyyi naan ndox. boo ko dee jël gis résultat. sunguf saa ngi nii képp ku ko am laa wax wala balaa sunguf see mat da nga gis résultat sunguf saa ngi nii sunguf su baax a baax a baax la boo ko sa awra bu gàttee boo ko naanee sa awra di dellu. da ko yëkkati boo ko naanee tamit da nga am kàttan te boo ko naanee da gis sa awra bi ni mu commencé yëkkati nga xam ne lii efficace la mm. te nag du ma ko yëngal liggéey sunguf si dama ko liggéey ci beneen ndox am na ñoo xam sunguf mm. am ñoo xam ndox lañu naan te am naa ndox am naa sunguf si ñaar yëpp am naa su ndox mi daa jeex waaye sunguf si moo fi des tële fi des bëritul képp ku am bu la neexee ba koro ngay sàngoo suuf mën ngaa yëg bañ a yëg tële xam nga man li may joxe du ma ko jox ci ay at ay weer déedéet dama la koy garanteel ngir dund ngir dund laa ngir dund maanaam loolu boo ma koy ah boo may ñëwaat ci ma naa ma sëñ li ma dal kat mooy loolu booy wax beneen aajo ngay jàmm waaye bokkut ak mu fi indi woon incha allah suñu waxtaan nañ ko wuti lu am njëriñ la ci doomu ci néegu sëy lu am njariñ la ci néegu sëy ku ne xam ne ne sëy moom buñ ko dee wax moom waaw man a tax te comme mën a di moom day am ku mu dal ñëwal seet sëñ Cheikh Jamil ci sutura woo ko ci sutura mu régler sa problème ci sutura te incha allahu kenn du la ci xamal dara euh, sëñ bi euh, mënuñoo wax te jigéen ñi chaque jour dañ leen di fàtte léeg-léeg jigéen woom ne ma buur da ngeen toog ñaankatu yàlla ba mu ba pare te du ñu ci boole sëñ bi jigéen ñi jommi nañu ci far sëñ bi jigéen ñi jommi nañu ci bopp buy metti bu sax dàkk sëñ bi jigéen ñi jommi nañu ci bañ a gisati boroom kër jigéen ñi jommi nañu ci bëgg a sëy te am doom te ñu ko am. waaw kay euh, buur faru li koy joxe dafa bëri benn jigéen ñi waxtu wu nekk lu ci bari bu ñuy génn maanaam duñ duñ musóoru te musóoru dafa doon loo xam lu baax la ndax ku bëgg a jur sang rek faaw ngay musóoru Euh, ndax faru rab dafa am waxtu yu muy génn te musóoru boo koy defee loolu pour mu dugg lu jafe la am na ñoo xam nag dañ koy dañ day nekk si ñoom te leen yàq lu bëri dañ yàq lu day tax duñ am am doom day tax duñ gaaw am jëkkër day dañuy génn sax di sëy muy góor mi ji waaye ku yàlla doon nga am ko ak ku mën boo ñëwee ci man dama la koy saafaral ba mu saafaraw maanaam dama la koy dindil seppi la tegale ko nële jox la loo xam ne yu mel na dootu ko jàmmati bu fekkee ne jigéen ko dafa te am borom kër a boo ñëwee dama la jox moom ñetti fan laa la koy diir borom kër. ñetti fan. ñetti fan beneen bi topp mooy bu fekkee tamit jigéen goo xam dafa bëgg am bañ am wujj sax dama ciy ñaan. bañ a wujje. bëggut am ci ñaan laa wax lu gaaw nag. léegi jigéen ji jëkkëram di doxaale nag nga ma ci kooku bu ñëwee loolu dama koy saafara dama koy dama koy raxas ci moom. maanaam dama koy def loo xam ne sa jëkkër laa wax ak ku mu mën a doon ak fu mu mën a nekk ak ndombo tànk lu mën a am dinaa ko def loo xam ne ci kàttanu yàlla maanaam bii génn moom dalay lay boo nekk demal mu mu dem boo ne ko toogal mu toog te boo ne ko toogal ci naaj bi ma dem ñëw dem ca marta mu ñëw mu toog ci naajoon loolu moom xam-xam waxtu ne maa ngi dimbali doomu aadama yi mm-hmm. ñi nga xam ne seen jabar seen seen dañ leen maam dañ leen menacé ak di def doxaani ak ku ma doon ci man aaj ji benn làkk dégg te ñaar incha allah loolu moom xam-xam moom dama cee naagu ndax li tax ma naagu ci daa doon lu wér mm-hmm. man damaa dama dama dama dama dama damaa jàngantu damaa jàng mm-hmm. beneen bi topp ma bëri na sëriñ som yaa ngi leen dégg lañ ko jox ñu ci dimbaliwaat te ko du ma ko wax sant naaj ci saa borom daal ki bëgg am doom nag te yàgg cib sëy kooku bu ñëwee dama koy xool ba xam lan ma a loolu mm-hmm. ma dindil ko ko jox ko ma am doom tey jii nit ñëw na ci mm-hmm. te sant naa ci man xam moom sant naa ci bam ndax boo ma xoolee rek ah. nga xam ne man sonn ma nga xam ne sonn ma dëgg la de fi nga dëkk day sëriñ bu sonn du fi dëkk macha allah li ngay dawal sëriñ bu sonn euh, du ko dawal kon li ngay def dimbali jaam yàlla yi moo tax euh, sëñ bi ñu dem nag ci actualité tuuti sëñ bi ku ne xam na nii Euh, Boy Niang Tapha moom daanaka doo wax ci làmb sax waaye combat bu xel yu bëri xaw a daal di la. waaw combat boobu moom li ma ci gis euh, mooy lan la Boy Niang Tapha jël bu soof la jël bu soof combat bu soof la combat bu la bu maam nit ñi sax maam dañ leen jaaxal waaye la ca biir duma ko leeral. Mm. nga dem ba ci biir nga xam ne la ma la waxoon mi ngi nii. combat bu soof la. beneen bi Modou Lo Ama Baldé war a jàkkaarloo le vingt cinq. moom deret dina fa bëri lool man maa la ko wax. combat boobu deret dina fa bëri lool sax lool ba àgg ci lool. très attention te combat bi fi ñu foofu. Mm. waaw wallaay naa si waaw xëjuñu fa de. te combat boobu wallaay naa moom moom nañ ci jugaat de. Mm-hmm. waaw nañ ci jugaat de. Mm-hmm. ndax loolu la ma ci gis. Mm-hmm. wallaay naa si mu ci jugul rek leneen mën na caa xew. man maa la ko wax te bakkan dafa fort. te nit ñi kuy dem na nga am na nga am kaaraange. ndax nit dana dem te du mën a mën a tàggu te du ñëwaat. te daal doy na waar mënu ma wax lépp yàlla baax na waaw. Euh, sëñ Cheikh looy tàggoo. waaw li may tàggoo mooy maa ngi santaat saa borom bu baax di ñaan suñu borom subhanahu wa mu def ci réew mi jàmm ndax soxla nañ ko. réew mi ak bitim réew mi di ñaan tamit sama mbokki sëriñ si ñi gën a gën a góorgóorlu wuti xam-xam. te ñaan na ñu gën ko jox gëdd ndax ñaan dafa laaj ak dafa laaj tamit maanaam toog dafa laaj tamit maanaam gën a jox ko gëdd ndax nit ki lépp loo nekk rek boo ci boo ci farloo suñu borom wuyu ci la ca di ñaan ñu ci nekk te te ci yàq maa ngi leen ñaan ñu dindi ko ñu bàyyi yooyu ndax tout le temps ñu may kalaame ñoom ñu nekk na tafaru ci maa ngi leen ñaan ñu gën a yokk ndax man awma lu dul ñoom ndax maa ngi ñoom ñoo bokk métier bi beneen bi si maa ngi santaat bu baax di ñaan suñu borom subhanahu wa képp koo xam ne aajoom dër na faju na ma woo ku aajoom dut faju na yàlla bo ma woo ndax man du ma ñaan ku aajoom faju te ku ma woo sa aajoom dina faju incha allah buur maa ngi sant bu baax